bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm rawatina suñu soppee yi nga xamante ne ñoo ngi bitim réew nekk ci diaspora bi vraiment di daan seen doole di soppee suñ xaadim yëpp suñ xaadim mu ngi leen di nuyu bu baax a baax di jaajëfal ñëpp ah di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ñëpp tamit di ñuy ñëpp di ziar ñëpp tey boo gisee suñ xaadim tey ñëwaat ci ci àll bi di waxtaane na indi njëriñu xam-xam ndax jamono ji ko xam jamono ji xam ne xam-xam nga bëgg reer ndax nit ñi ni ñuy doxé ci xam-xam ni ñuy waxé dañoo am xam-xam di ko no xamanteni doyna ni ñepp ñepp te ngeen seen bëtt muy lan problème bi fi passé moy sëriñ yi invité won ci benn télé bu mag duñu ay sëriñ tax wante dañ leen invité won ci benn télé bu mag ñepp xam télé bi gis ngeen la fa am la fa am moy jëf ju xaram bëgg a salteel ñi nga xamante ni kat dañuy yëngu ci wàllu ñaan dañuy yëngu ci dëgg lañu ñu bëgg a salteel sa mënuñu ko ñooñu ñu ñu war a jàpp lañ ndax parce que ñooñu ay nit yu xaraam lañ jëf ju xaram la ñuy def ndax xoolal ma ku toog teg ginaar a bakkanam ba ko yàlla di sàkk fekke woo ba ko yàlla di sàkk xamoo fan nga ne nga teg ginaar teg di bës di ko di bës ginaar gi di ko rey naan xam-xam ngay wane kooku wanewul xam-xam ndax wanewul xam-xam bi maanaam mooy bu dee da ngay wane xam-xam waroo ko wane ci lan ci tale dangay ngay bàyyi ba nit ku ñëw am jafe-jafe ñëw pour nga ñaanal ko nga wan ko xam-xam defal ko mu gis foofu la ñu wane yow am nga xam-xam waaye du jàpp ni da ngay toog si plateau di def dara rey loo xamante ni mala boo xamante ni yàlla moo ko sàkk sax ba mu lay ba mu koy sàkk fekk woo juddoo woo loolu dafa ñaaw. ñeneen ñi tamit di def jëf yoo xamante ne jëfu xaram la naan ay féticheur lañ nañu bàyyil ñuy roy ku nekk na nga mën na ca dem nañu bàyyi yenn yi dafa xaraam nañu dellu ci dëgg sëriñ lu ama am la muy ñaan yàlla dafa am lu ama am la. bala nga koy xam nga seeti kaneen ak kaneen wala nga seet ci ma man ma dugal la ci àll bi nga gis sëñ xaarim ni muy liggéeyee waxuma nag man maa yor xam-xam bu piir bi waaye si kàttanu ci borom am na nuñ ci yàlla wan ba xamante ne képp kuñ ci jëflanteel diñ ci gis sa bopp xooleen ñi ma xamante ne damay jëflanteeg ñoom ci wàllu yokk awra xooleen ñi may jëflanteel ñi nga xamante ne ñoom amee feebaru rab xooleen ñi may jëflanteel ñoo xam ne dañoo bëgg a tukki xooleen ñeneen ak ñeneen jigéen ñi nga xamante ne dañoo bëgg a sëy mënuñoo sëy suñu sey duñ fa toog xoolal ñoo ñimay may ak ñoom di ñaan yalla suñu borom ci ñaan bu sel bu dagan rayuma jox la deret defuma dara limay def lu dagal la damay ñaan yalla sunguf ak reen akum bind akum kurus la xam sunguf ak reen akum bind akum sunguf ak ñaan yalla la xam lool la xam moy sama liggey sa kep ku ñew ci lool la yam damay ñaan yalla rek yalla moy motali lepp yalla mo am yalla mo mën yalla mo katan lu am yalla suñu borom la waye nañu bàyyi yenn di naxé naxé bi amul sens nit ñi nañu sélal ñaan yi nit ki bo sélalé japp naa ni si domaine ba nga nek nga sélal ko yalla mëna la ci defal tranga sa lu ne mën ko ci am sa fu ne mën nga fa ag waye tok di def lo xamanteni dafa haram ñuy waxati nga tak ngeel ngeel maam Seeran Faal tak ko sa digg di woné en public tek sangara nga rek julit nga yow do julit do julit len nak la lay la xamal naga dem dem bi dem li nga xamante ne mooy liggéey moo gën ci yow yow da ngay salteel métier mi yéen ñi toogoon foofu yëpp da ngay setal da ngay salteel métier mi kenn rek laa fa nawloo mooy ki nga xam ne day jaay produit yi waaye keneen nawloo ma ko foofu yéen yi dafa xaraam waaw deltu nag foofu tey li tax ma njëkke fa maanaam sama xol moo tàng lii nangu munu ma ko woon a bañ a ñàkk a génne munu ko woon a bañ a génne beneen bi maanaam mooy ah di ñaanal lan suñu lion yi mooy équipe nationale bi nga xamante ni kat ñoo ngi kii sëñ Xaadim yàgg na wala leen ko doon wax. defoon naa ci vidéo nag am saraxu bëy bu ma laaj ba waaye ba ko ñoo xamante ne ay waay yàlla lañ ñoo xamante ni vraiment équipe bi rek ñoo leen ñor am na si ñoo xamante ni volontaire nañ dikk jënd li mu bëy yooyu ma laajoon ba jox ma ko ñu jënd ko def ko sa ñaar yëgul ñett yëgul dañ ko def sa yàlla rek tax pour équipe bi jëm sa kanam sa dañuy ñaan yàlla yàlla mi nga xam moom mooy maye di ñaan équipe bi yàlla na fi indi coupe bi. sa loolu rek la ñuy ñaan waxuma man sëñ xaadim équipe bi dina indi coupe de waaye dama damay ñaan saa su nekk damay ñaan yàlla di ñaan yàlla mi nga xamante ni moom moo ñu ñaan yàlla mu indi coupe coupe bi ñëw ci réew mii ci laay ñaan damay laasewaat nag beneen sarax boo xamante ni fekkee mën nañ koo def ñu indil ma ñetti xaru benn melo xaru benn melo lay doon xar yoo xamante ne xar yu weex lay doon xar yu góor ñu indil ma ci ñetti kuy ci kàttanu si borom ñu def sarax boobu boole ko fruit banaana ak pomme ak orange bu ci nekk carton laay laaj ci kàttanu si borom ñu def sarax boobu incha allahu rabi bu ñaanaatee yàlla comme nañ ko defee woon bee yàlla mun nañoo dimbali ba li nga xamante ne moom mooy kat coupe bi mën a ñëw ci réew mi ñu gañ a mas yi des damay ñaan yàlla nag yàlla mooy mottali ci lépp kon sëñ xaadim loolu la dikkoon tey dana la ko présenté yàlla laay ñaan waxuma lii coupe bi day ñëw dama ni am naa sarax yoo xamante ne kat bu ñu ko defee coupe bi am naa yaakaar mu ñëw fii na ko waxee woon ba bee passé ma ne bu équipe bi bëggee sori nañ ñu indil bëy fukki bëy am na ci ñoo xam nag volontaire nañ indiloon nañ ma fukki bëy yooyu ba def naa ko sarax sa ba ma koy def sarax ñooñu gis nañ gis nañ ni ma ko defee kon nag delluwaat naa di laajaat ñetti xar yu weex muy xaru benn melo yi ak li nga xamante ne moom mooy fruit bi banaana lay doon pom ak orange ci kàttanu si borom bu ne carton ñu def ko sarax incha allahu rabi ñaan yàlla mi nga xamante day maye si kàttanu si borom coupe bi dina ñëw si réew mii sa ngeen xam ne nag ñaan lu ama am la loolu nag laa am lu may wax di nuyu ñëpp di ziar ñëpp numéro téléphone baa ngi ci écran bi képp ko soxla rek incha allahu rabbi mun ngaa contacter sëñ Xaadim jaajëfati jërëjëf